lay lay la la woo waayaay ay way sama ee Omaro Gueye ñëw na ki ma booleeg yow mi ngi nii borom jurul borom jàpp ndal xabaar daaray la daaray jawaan ga jaraan laay ba gaw moo ne woon cun yàggal jamono ti wir lool cun jaam ñi nga doon fi wëg fee ci Sëriñ Tuubaa

woo waaw da daan jékki-jékki di tuuri xewal ñu naan ko sang bi lu ko waral mu naan mala yi ñuy dóor te defuñu dara mooy metti sama yaram wi ndeysaan ak a bari woon yërmande moroom yi nag aka bax te am jom daf ma woo siidi nañ dim dooleel Tawfekh Mbaay ne ko loo ne ma ne ca Omar ku la bëgg la yërëm yéene na la xam na li nga yéene ku la bëgg ku la yërëm yéene na la xam na ki nga doon Omaro ki la bëgg ku la yërëm ku la yéene sam njariñ Omaro ku la bëgg ku la yërëm ku la yéene xam na sa gëdd laay laay la la lu jóge ci xol ci xol la jëm jóge ci xol ci xol la jëm tawfeex mbaay maa ngi lay ñaanal ci barke Serigne Cheikh Béthio Thioune ma ñuy jooy te noppi guñ laay laay laay laay maam Cheikh Fall la ñu woowee sa maam Issa Dieye Fatim Penda lan suga be ngone jeyi damel sujugu damel jalaw damel samba yaaya Fall Cheikh

saali woo wàcc ba sëf waaw waaw tawféex sama xol sedd maa ngi lay ñaanal ci barke Serigne Saliou Mbacké yàlla nga am jàmm ma lay xamal ne Omaro mii ku la bëgg ku la yëg te bu sañoon lépp lu waay di am ci micro di ko am yàlla daa dogal ma féetu ak moom bëgg ko trop nag mu bëgg ma lool ma lay ñaanal yàlla yàlla defal jàmm tawfiq sa bis bi barki Serigne Saliou Mbacké lu nekk la ci daj dama leen rek waaw fi neex na dama bëgg tawfiq am ndam yal na la yàlla defal jàmm ak sutura kontaan naa te nga ko bu baax a baax a baax a baax nit ku rafet xol ngi nii kontaan sama jumeau ngi noonu fii di kat ci ginnaaw maa ngi dem toog fe dew ma de damay toog fe damay déglu père Maw maa ngi lay nuyu Mas Boga. gars fi ngeen jàpp noonu la. jërë ngeen jëf mbooloo mi. sama yaay caama. ak askanu waa kër Baye Cheikh Mbaye yëpp. ak tawféex ñi mu bokkal. ñëpp ñoo ànd di la jotal ngërëm Omaro olof yi nee nañ génn ko la gudd na waaye loo ca laal borom yëg ko bisu tawféex bii nga ànd ak sa doom ji nga xam ni bëgg gi nga ko bëgg Sidi Diop àdduna ko seede waaye yow day bàyyi woo ba bis bi jot rek nga ñëw Sorano gi directeur Ablaye Koundoul woo nga ko waxtaan ak moom waxtaan ak Sidi njaay ci lu yombal xew mi sonorisation bi tax wax ji neex yaa waxtaan ak sa doomu nday Matar Diop suba tel indil ko sono bi boole ceeg di ko teg ci yoon naan ko defal nii waxal nii demal fii ba bis bi toll fii Tawfekh Mbaye mooy ñaan ay mbokkam ay xaritam képp koo xam ni sopp nga ko nga tàccul ko Omaro mu Serigne Saliou tàccu leen loolu li nga def ku soxor munu ko ki iñaan munu ko kuy concurrence munu ko yàlla la yàlla sàmm keroog bi ma joxe koppar yi dama ko naroon na filmé mu ni ma sant ma bul filmé bul def dara yow ñëwal rek bégal mbooloo te noonu lay demee tey Omaro looy wax. jërëjëf gaay ci suuf mbaaya balaa maa tàmbali sama kàddu damay nuyoo asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. ñoo ngi nuy mbooloo mi ñu fi teew ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di baalu ñëpp ak tey baal ñëpp ak di ñaan yàlla jàmm sax ci réew mi ma fi nuyu sama sëriñ ndax man fi doomi Seex Béthio ne bu ma ko fa fekkee mooy sama sëriñ rawatina moo am ci man ñaari cër mooy di sama sëriñ ba noppi di sama yaay ajaratu may sa cuun may sa la demba ma dem ba sa mboori kule ab sa njaay beeco albaabu anta maali gànna paan ma jigéen biram far ba sàmba saa neex sa pend moo jëre jong may kàddu géwél ma coro ab sa njaay ma buso ab sa njaay ma njoxoro ab sa njaay birama daali ab sa njaay sa baay ja mooy cheikh beeco borom fit wu dër wa ci cheikh Saliou Mbacke yaay man maay yow jàpp ci yow mooy dëgg-dëgg jàpp ci man te ku ko def noppal ma fii ak fa nu jëm koo koy jaamu Serigne Saliou cheikh beeco cun soxna Maysa xam nga ne fu la fekk dinaa la sargal mbokkum yaay mam menda mam menda mu alaaji bu kuwaate loolu lu doyul waaye maa ngi seen di seen ndeysaan sama bàjjen sama bàjjen sama bàjjen ñu ni ngoon a jaxate ngoon a loolu lu doyul ah mbaaye lii bari na am dafa sa poche caama waaye mbaaye ku la waay mbaaye bari na dama lay sargal te bu ma sañoon oto lay sargale fii tey barke alxuraan lii xeeb naa ko dama koy sargal mook sëriñ Khadim Meng di ci sant sama nijaay tonto pap ay tan latir allah ji tan buso ndax lii lépp yéen la Serigne Khadim Meng mboso ma ngi ñëw di sant sama mbokk yëpp léegi nag dama bëgg sama yaay xujja ñëwal waaw waaw maa la ko wax. jërëjëf. teraanga ji bari na. mbaaye kenn tegu la ko. lu ma def ci yow dama ko war a def. ndax sa yaay ji toog di ajaratu caama. moo ba ma ne ma Omaro. ma ne ko naa mun ma may naa la tawféex. ay yaxam laa la laaj. ni ko yaay dégg daal defee woon. ni ko yaay Mor Thiam defee woon. noonu la ko sa ndey defee. kon dama bëgg nga xam ne lépp loo xam ne war na ma ci dégg daaj ak Mor Thiam daf ma war ci yow ndax sama doom nga sama xarit nga sama rakk nga bis bi nag lépp luñ ci jëf wareef la ndax ñun bi ñuy toll ni seeni at danoo amoon ay baay ak ay mag ak ay yaay yu ñu jàppale kon tey bu nu demee ba yàlla dogal ñu man as néew war na ci ñun ñu geesu suñu rakk yi jàppale leen ba tax na ça fait l'occasion ci sa bis bii jërëjëf Mass Serigne Saliou wala defar yow boo deful lii doo as gor seex beecoo la defar boo deful lii doo as gor seex beeco ku mu defar da ngay defaree Serigne Saliou ku mu defar da ngay defaree waaye maxu suba teel boo bokkeek moom nday ak baay bis bii am nga jël sunu jarbaat bii defaral ko son bi ba ñëpp mën a dégg li muy wax ñëpp mën a xam li ñuy wax Omaro Yaasis gor gàcca ngaalaama mu jëwoo puso bi mu réer ci seex ca jun Omaro gisatoo sab sëriñ waaye yaa ngi sab sëriñ yaa ngi uf sab sëriñ yaa ngi uf sab taalibey sëriñ yaa ngi def loo mën ci sab sëriñ dama ni Sidi Diop ñëwal nii bu laxatu ñëwal ñëwal nii Tawfekh Mbaye da ngaa woote te da ngaa décoré Omaro lii moo ma yëggal waaye leneen yëngalu ma yàlla nga eggalee eggalee jafe te yàlla nga eggale Mbaye Omaro dellul ca la nga nekk jërëjëf wax ji du bari mbaaya damay sant rek te di la ñaanal yàlla nga yegg ni aw yoon waaye dama bëgg njabootug Cheikh Béthio bii fi teew te soxna Maysa ak soxna Mame Mbenda jiite ko ñu xam ne lii ma tàmbali ci yow tey fas naa yéene bis ni tey fii maa ngi dund at bu jot ma def ko ñaari yoon ci at bi jëme ko ci sama rakk yii topp ci sama ginnaaw di waykati Cheikh Béthio yii di werekaanam yi ma yëgal leen ni bis ni tey ngeen xam ne février bu jotati dinaa jël kenn ci waykati Cheikh Béthio yi may ko saal may ko sono may ko lumière mu ñëw way Serigne Saliou xol yi kontaan bu nu ko defee février bu nu doxalee juróom weer jàpp juróom benn dana nu dolli ak keneen ma yëgal leen ne bis ni tey ne incha allahu rabbi le 17 juin 2022 bii dégg daaj mooy sargal Cheikh Béthio fii ci Sorano te jël naa saal bi fay naa ko ba noppi te mayaat naa ko soo mayaat naa ko lu mu yar dégg daaj a ngi nii mu Cheikh Béthio mu Serigne Saliou yaa aaye yéen ñëpp di jël seen wàll Mor Thiam dana ñëw boo dégg boo noppee mooray ñëw su Mor paree Pape Mboup ñëw su Pape Mboup paree Sal Thiam ñëw bu Sal Thiam paree xale yi ñëppay ñëw te ku ñëw may fay soo may fay lumière may fay sono may fay saal ci dooley seex Béthio mbaaya sama xol sedd na sama doom ji nag Sidi Diop aw ma fayam Sidi yàlla moo ñu boole nga bëgg ma te yàlla tax lu mën a yàng nga ca ak man bis bii bi ma ci jëlee engagement nga jug dajale koppar yu bari jox ma Makhtar Diop suba teel ne ma Omaro ma ne ko naam mu ma yow ci level bi nga bokk kenn du la fayee ko xoolal loo yëkkati rek teg ko ci kaw xale yi ne leen